mbégum mbàkkeeg ndaam cëral na waa ndaawaam góor dootul yab ndaam tey sëriñ baara mooy ñetti mbàkke bu kenn ñaggi seytaane teggi ngir sëriñ baara defar na waasuur billaahi moo foor jommal na docteur Cheikh Baara Mbàkke ñoo ngi yëkkati suñu kàddu ci turu Cheikh Mouhamadul Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñi Cheikh Mouhamadul Amin Baara ak ci turu njaboot gi yëpp waaye loolu lépp ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Muntaxa al xalifatul am lil muridin ayadahullah wa nasarahu nga xam ni bis bi bisam la njaboot gi ak njabootam la lépp ci ndigalam lay dox ñu ñaanal ko yàlla suñu borom subhanahu wa taala guddal fanam te may ko ak wér ba li mu yéene liggéeyal seexul xaddim suñu boroom dimbali ko bi barakati rasulillahi alayhi salaatu wasalaam mu liggéey ko ak ci ndigalu ki nga xam ne nag mooy boroom ëtt bi di bàyyi Ahmadou Maxtaar ndax xam ngeen ni diggante Daarul Xudduus ak guy mbind benn ëtt la képp ku mag ci ñaari ëtt yooyu yaa ko yilif tey moom la yàlla teg ci boppu njaboot gi kon lépp ci ak teewaayam ak kilifteefam ànd kook njabootu